الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضي الله عن شيخنا ومولانا عبد العباس أحمد بن محمد التجاني وعن خلفائه وأصحابه وعن شيخنا وجدنا لجأ عبد الله نسل ركبه وأرضاهم عنا يا هم الشيخ صحتر لنا في هذا المحضر والطف لنا بالفتن تأتي لنا بالسفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي من الدنيا أبو سنت يال جلسي يوم تبي أنا اللي ما نشوف سيدنا شيخ أحمد تجاني أكي خلفاهم أكي صحابهم نانا ñaanal ngërmaane suñu sering-sering suñu maam Alaaji Abdoulaye Niass mu mag ñaan yàlla gërëm loo leen gërëm loo leen ñu ñu ñëwaat ci téere bi nga xamne moy mooy mutahhirul qulub wa mutali'ul ghuyub bi nga xamne ne suñu maam Alaaji Abdoulaye moo defoon ci taskir te moy selal bakkanu nit ba mu jëm ci yalla ba mën ag ci yalla ba mën a nekk ci ñun di wàllu yàlla ñu ñëwoon ci bunt yi nga xam ne moom lañ doon jàng buñ ci mujjoon jàng mooy kañaan te mooy nga mébétal sa mbokk mi li mu xam dañ yàqu donte yow doo ci jot ñu waxoon na kañaan dafay lekk jëf lu baax comme ni safar di lekkee mat kuy xañaan du sang waxoon nañ ne jàngoro ju nekk nit xam na garabam ba mu des ki nga xam noonoo bu nekk nit mën na koo saafara ba mu des noonoo gi nga xam ne boroom daf laa noonoo ci kañaan ndax kooku moom fekk gisul daal laaxira rek xolam du sedd waaye moo xoon ne euh, kañaan am na xadis bu ñëwoon ne kañaan si ñaar la nekk mooy ko am xalal am xam-xam am xalal di ko dépenser ci yoonu yàlla nit ne man de su ma xamoon xalaat ju mel nii danaa def ni waa ji def ne ne kuy xañaan loolu nga wax xañaan mooy xañaan googu nag dootu tudd xañaan loolu mooy ñee ñeetaan mooy nit ki xam lu baax di def lu baax nga bugg a xam yow itam ba mën a def lu baax la muy def loolu moom lislaam terewu ko tax loolu sax mooy tanaafus bi ñu wax ne falya tanaafusil mutanaafisun ndax loolu mooy développé diine mooy développé addina loolu moom sopp nañ ko moo tax yéen suñu da nga gis waa ji nga xam ne moom dafa xam xam-xam am alal di ko jëfe keneen kii xam xam te amul xalal ne man de suma amul xalal dinaa def di diw def mu ne kooka mook moom da bu ja waaja xam da xam ndax ki xam xam naa amul xam-xam ne su man de su ma amoon xam-xam danaa mën a def lu waa def mu ne booba tamit moom dañuy dañuy bokk tiyaaba ji kii am alal moom di ko moye yàlla di si def lu nekk beneen waaye gis ko ne ah man de waa ji su ma dinaa ko def dinaa def li muy def mu ne su boobaa bakkaar ba ci kële am moom la ci am bon ñeetaan baax na waaye keñaan baaxul keñaan nag li koy saafara mooy nga dellu ci sa borom xam ne yàlla mooy maye mooy ku la am moo la xam ku xañ moo la ña xañ nga gërëm lim la xatte lim la dogalal gërëmal kële la am ñaanal ko mu yokk ndax bu yokkoo barke man nga see jëriñu su ko defee nga jéem a raxas sa xol bi eh, kañaan ba mu set su ko defee nga tuub ka nga xam ne moom nga xëy ne woon safaan nga xëy ne ko lu baax su yàlla mën na laa dimbale ba tàggale laa kañaan tey ñu ñëw ci faslun fil bi bunt bi nga xam ne dafay wax ci rëy mu ne wal kibru fajtanibhu yaa man raama raama al qurba min sil arshi wal maraama mu ne wal kibru rëy fajtanibhu teet ko mooy nga moytu ko wattandiku ko yaa man raama yow mi nga xam ne sàkku nga al qurba jege si sil arshi ci borom xaras wal maraama ak càkkutéef bi yow mi nga xamne da nga bëgg a jege yàlla te say ci min nga man ko ngul sa jot na nga na nga moytu rëy bon da fay xagn jege yàlla waaye dafay xañ nit ki ay ay ay ciakuté càkkuteefam ñëw ci sara bi dina gëna leer wa yuxrimul maru wa yuxrimul maru min adduxuli fi jannatil ilaahi fi lmaquli wa ihramu dana qagn al mar'u tam tamsi wala al mar'a min al dukhuli ci duggu def na qagn kon def nañ qagn nit ki ci duggu al janna wala mom wala yuhrim aw ahram fi jannatil ilahi ci hal janna ya fi maquli ci liñ wax li nga xamne moy wax moy ko ku reey du duggu hal janna bon kep ko xamne di da nga bëgg duggu al janna nga moy turay ويمنع الفهم بلا خلاف فلتجنيا يا أخي ختافي ويمنع دنا ترى ممبري الفهم دق وخي علي كو كو خما دفو ري دوما دق القران دوما دق حديث دوما دق وخي الله دوما دق وخي يونتي بلا خلاف تي لودو فوتي نيب داكور نانتي كو ري دوما جانغ دوك ندخ جانغ دو دق بون يو فلتجنيا نغا وات yaa ak yow sama mbokk xitaab yi sama sama meññet sama meññet mi nga xam ne moom laa def fii te mooy waxal la rëy ak li nga xam ne moom lay lor ba nga moytu ko moytu wéy mooy nga wattu meññet mi wa innahu la wasu sil jalaali jalla wa azza saahibil kamaali wa innahu naka moom rëy la wasu si jalaali wallaahi melokaanu borom ay aji màgg ji la te mooy yàlla rëy melokaanu yàlla la yalla magna na wax sa tanoon na sahibul kamali bu te mooy borom mat yalla mi nga xamne mom rek mo mat reey moy melo melokaanam la motax ken du reey lumay may danga kuy lu rek da ngay diir mbagg yàlla jàpp na ci xaraam ci mukallaf tam bokk ci feebar yi nga xam ne feebaru biir la mooy feebaru xol yoo xam ne wa war nañu laabal ko ba mu set ndax xol bi bu fekkee ne réyang si xol boobu kenn leer yàlla du ci dugg leerak ak xam-xam du ci dugg bon réy mooy lan mooy màgg-màgglu ak mbër-mbëru loolu si loxo mooy kuy màgg-màgglu yëkkati ku réy réylu ak mbëru mbëru mooy di di not nit ñi di leen lor ci istilaax nag mooy ci xéwé nag ñooñ tarbiya wala ñooñ taskiya yarkat yi dañ ne rëy dafay sedd dafay séddlikoo ci rëy ak biir rëy goo xam ne si biir la baatin la ak rëy goo xam ne zahir la bon ñaari pàcc lay defagum pàcc bu njëkk bi mooy rëy ak biir nga xam ne si biir nit ki lay nekk ak la yëg boo xam ne saaxir yi la mooy bi boo xam ne si biti lay nekk dañ koy gis mu ne am ma ak biir gi mooy ki nga xam ne dafa rëy dafay gis boppam mu nekk ci kaw ki nga xam ne moom moom moom moom lay rëylu ci moom ba nga xam ne dafay mujj nekk pas-pas ci moom jàpp ne kii moom maa ko gën waaw nga xam ne du si am lu muy dengi-dengi day bég timin ci loolu du jàpp ne kii maa ko gën bu ko gisee wala mu def sest wala nit de sart boo xam ne daf ko wane ne kii yaa ko gën daf ciy kontaan mu ciy sukkandiku tamit ci loola si jëflante mag moom ak jëflante moom nit ñi ci moo jooju daf koy daf koy daf ciy sukkandiku muy teddal bakkanam ci sababu réelu googu maanaam mu ko siy jox daraja loolu mooy réy ak biir koo xam ne loolu yi nga ko nga xam ne gis nga ne kii maa ko gën te danga koo fas te danga ciy bëgg te danga ko danga koy dëgëralee sa bakkan su boobaa am nga rëy ak biir amaale ak saayir bu biti bi mooy jëf yi nga xam ne mooy jógee ko ci cër yi te nga xam ne lu bari la ngir li nga xam ne mooy nekk ci biir maanaam li nekk ci biir su dee ne loolu la foog jëf yi nga koy jëfe su dee kii dangaa jàpp ne yaa gër foog nga xeeb ko foog nga wan ko xeebeel di jëflante moom ci xeebeel di ko di ko di ko troxal doo ko doo ko jox cër foo dajeeg moom wane ne kii maa ko gën loolu mooy jëfi saaxir xataa boo doon joxe sax boo koy jox danga koy jox jox ak wane ne man maa la gën loolu mooy réeg saaxir kon réeg biir gi su fekkee ne mu ngi ci rek yi muy manifesté ci biir bi loolu mooy wane ne kii dafa rëy dañuy xam ne kii dafa rëy jëf yi muy action yi muy def moo koy wane ñëw na ci aaya yu bari ak hadis yu bari yoo xam ne dafay xaraama rëy ak di ko ŋàññi ci loo xam ne dafay def nit ki nga xam ne dafay ndax mu mën a def nit ki nga xam ne dafay rëylu mu tuub dellu bàyyi rëy gi saafara bakkanam bi jàngoor ji nga xam ne moo nekk ci bakkanam te mooy rëy rëy gu bon ñu indil la ay ay ay misaal ay exemple ci laay alxuraan hadis ak jeexital mooy li nga xam ne boroom xam-xam yoo ko wax ci ŋàññi rëy ak képp kuy rëylu ba tax soo ko defee soo rëyutoon nga gën a daw rëy soo rëyoon nga mooy nga gaaw génn ci rëy bokk na ci aaya yi wax yàlla ñu wax ci téere bu mag bi te alxuraan waxoon na ko ci fële leen la kuy rëylu du dégg dégg alxuraan mu ne sa asrifu an ayaati alladina yatakabbaruna fi l ardi bi xeyril xaq danaa soppi sama laay yi ci ñi nga xam ne dañuy réylu ci suuf ci lu dul dëgg moo taxoon mu ne kuy réylu dañ koy xañ dégg yàlla ne koo xam ne dafa rëy sama sa aay dama ko koy soril du ko comprendre du ko xam te ku déggul aay yàlla yi doo mën a xam yàlla te ku xamul yàlla doo texe moo tax rëy baaxul mu waxaat ne kasaalika yatbaxu laahu ala kulli xalbi mutakabbirin jabbaarin naka noonu la yàlla di kastee bépp xol boo xam ne xolub aji réylu la koo xam ne dafa mbëru koo xam ne dafay wane ne moom moo man ñëpp bon képp koo xam ne dangaa réylu rek sa xol yàlla daf koy kan kaste te xol muñ kaste ngëm yàlla du sa dugg mbaax du sa dugg leer du sa dugg tabu طبعا موم موي تانك فاتكو بوم ني تراس دون دو جوب خاتمو نك موي دنجي ديف لي رك نغم يالا بري فيرمي كو باغا خامني نغم يالا غو دوغين موتا خاتمو بي خات خاتمو القلب اك طبعا القلب اوتي ناي مو وخاني إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين من سين يالا كن لا بن يالا نين هم تموي كي بيند اسما اك سوف بيند لين كنن كو نين داف يالا ولا لنين لو نين داف يالا لولا دو يالا من نيغا خامن نا گمو نيو الاخره سين خول يي دانيي فك اي يالا يي دانيي فك ديغل يالا يي تموي دنج كوي دنج كو خام te ñooñ mooy ñi réylu ñi réylu dañuy fakk nga ay yàlla yi mooy ñi gëmul àllaaxira te dëgg-dëgg yàlla xam na li ñuy nëbb ak li ñuy feeñal te yàlla bëggul ñi nga xam ne dañuy réy réylu bon ñàkk bëggal yàlla rek doy na mooy tund ku réy ndax ku réylu yàlla du la bëgg moo xam ne inna lazina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daaxirin ñi nga xamne ne dañoo dañuy reylu walis sama jaamu dañu dañuy reylu walis sama jaamu mo xam dañoo réy jaamu dañu julli wala ho wala ñaan ndax ñaan yépp ci jaamu yàlla la nga xam ne daal mooy toroxlul yàlla ñi nga xam ne dañoo réyloo toroxlul yàlla ñi nga xam ne dañoo réyloo toroxlul ma man yàlla danañ leen dugal jahannama ñu béel fa ku réylu torox jaamu yàlla safara ngay dem te danga fay dee yàlla na ci yàlla musal yàlla xattee ñi nga xam ne dañuy kaw kaw la di réy réylu ci xañ leen xal janna ak yërmaandeem ci àllaaxira mu ne tilka daaru tilka daarul axirati najcaluhaa lillazina laa yuriduna ulwan fi ardi wala fasaadan wala aaqibatu lil muttaqin mu ne kër googu leen ci àllaaxira te mooy aljanna dañ koy defal ñi nga xam ne bugguñoo kawe ci kaw suuf te duñ fi yàq bugguñ fee yàq bugguñ fee kawe bugguñ fee yàq te kaw kawe mooy di réylu di jaay seen daraja di jaay seen maxam yàq mooy ngay fab mbir di ko def noonu mu ne mujj mujj gu rafet ñi ragal yàlla ko am te mooy ñi nga xam ne dañoo toroxlu duñu rëylu yàlla wax di mokke te yàlla jomb ne mokke waaye uslub la uslub eh, wane wane ne ñii duñ dara yëj ji wala di saboté ñi nga xam ne dañuy rëylu mu ne walaa tamsi fi l ardi marahan innaka lan taxriqa al arda walan tabluqa al jibala tuulan kullu zalika kaana sayyi'uhu inda rabbika makruhan sur isra mu ne yow doomu aadama bul dox ci suuf di sigle mooy ngay mbég bu fi nekk di dox di tiitaru ndax yow mënoo labal suuf si mënoo dox ba nga xam ne boo dóoree si tànk bi suuf si bënn mënoo ko te doo jot guddaay doo gudd gudd bu sut montagne yi bon lan nga fi jaay te loolu yëpp ak ñaawteefam luñ ciblé ci sa borom réylu ak di puugaréewu yàlla da koo sib loolu moom la alxuraan wax ci rëy bon gis nga rëy dara baaxu ci bon képp ku ko melokaana da nga ko war a baax ndax ku ko baaxul doo àgg ci yàlla ñëw na si hadis jëlee si an abdullahi ibn mas'ud an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yadxulu aljannata man kaana fi qalbi misqaala zarratin min kibrin قال رجل قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وقمت ناس رواه مسلم jëlee nañ si Abdoulaye ibn Mas'ud jëlee si nabi yonent bi sallallahu du dugg ci aljanna koo xam ne nekk na ci xolom bi kem pepp sarra mooy kem pepp atum ci rëy lu tuuti loo xam ne bët mutu koo gis kum nekk si sa xol ci rëy doo dugg aljanna benn waay ne ko ah waaw su fekkee ne benn waay ne moom dafa bugg am mbubb mbubb yu rafet ak dàll bu rafet nga xam ne moom da koy def pour yonentu na ko yàlla ko rafet la dafa bugg taal taar loolu yàlla bañu ko nga wut yàlla may la xéewal nga feeñal xéewal bi di sol mbubb yu rafet di sol dàll yu rafet bi wut sa kaalo yu rafet sa sa lépp lu rafet te nga xam ne da nga koo def ngir sante ko yàlla ak feeñal xéewal mu ne yàlla dafa dafa taaru te dafa bëgg koy taar mu ne rëy mooy nga bañ dëgg tey tey tey xeeb nit rëy mooy nga bañ dëgg sib dëgg ba pare te xeeb nit ñi loolu mooy rëy bu ñu la indee dëgg nga bañ bu fekkee nit ñi nga jàpp ni yàgg nit ñi mu ne loolu moo rëy donte ay sagar nga sol sax su boobaa dangaa rëy ki nga xam ne nag moom mu ngi sol ay bu ñu gën a rafet te ni mu bëggal boppam la bëggoon jàpp ne nit ñi te fu mu see dëgg nangu ko kooku kenn du ko jàppee ku rëy jëlee nañ si Abi Hurayra mu ne yàllaa ngi wax tudd naa sellam rëy sama làmbaay la màgg sama sama ñëg la làmbaay mooy li ñuy def ci kow ñëg mooy lu ñuy def ci suuf mooy taraxlaay maanaam waxin la maanaam sama sama ñaari melokaan la ku ko xëccoog man kenn ku ko xëccook man ma sànni ko safara يقول سبحانه وتعالى الكبرياء وردائي والعظمة إزائي إزاري من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم رواه مسلم أبو داود ابن ماجه جلنا إن شاء الله ينتهي إما رضي الله عنه موي أبو هريرة من ينتهي وحنا نت يلا دو واحد يوم يوم القيامة تدولين سلل أبو معاوية كسنة تدولين قول ten xam nañ mbugal mu metti mooy mag muy njaaloo màggat muy njaaloo ak buur buy fen ak ku ñàkk kuy réylu mu ne ñett ñi yàlla du leen xool yow ma xiyaam ndax daf leen a jéppi ndax su dee ndaw li sax mën nañu wax ne kii damm sabaawa ngi si bànneex a ngi si moom waaye màggat ba pare dem di ñaaloo kooku yàlla du ko xool yow ma xiyaam du ko yërëm buur buy fen yàlla jox la nguur jox la lépp nga xilif ñëpp ba pare nag di fen kooku yàlla daf koy jéppi ku ñàkk xamoo dara ba pare di réylu di xeeb ni ñee ka eh, bañ dëgg kooku yàlla daf koy jéppi bon ñett yooyu nañ ko moytu jëlee nañ ci eh, salmata ibnu akwa ci kenn saxaaba yi la woon ku mënoon a daw la moom moo dàqoon a daw fa sax ku mënoon a fett la tamit su ko jàngee siira da nga gis jaloor yu bari yu mu def ne na benn waay dafa doon lekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak càmmooyam yonent bi ne ko lekkal sa ndeyjoor bi mu ne ko mënuma ko yonent ko man ko waaye daf la koo teree dafa rëy ah yàlla mu ne eh, waaje yëkkatiwut loxom ba jëmati si gémmiñ boo ko yónnee te waxee loolu mënatul yëkkati loxom bi mu jëm si si gémmiñam bi bon suul adab boobu mu def ah, suko xam ne dama ko miin kat yónnentu ñaanal ma ma ba ko su ñaanal ma ma ba ko ko na mënuma ko inna rajulan akala an inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimali fa qaala kul bi yaminik qaala la astatiu qaala la statata ma manaahu ila alkibru qaala fa ma rafaaha ila fihi rawahu muslim ñu lee saaris ibnu wahab mu ne dégg naa yónnentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ndax duma leen xamal ñooñ safara ñoom mooy dugg si ñu ne ko am kañ mu ne képp koo xam ne dafa jàgg ku xiis koo xam ne dafay dafay dafay dafay dafay dafay tere li mu xam jawaas ak kuy réylu nii la ko waxee ala axbirukum bi ahli naar kullu utulin jawaasin mustakbirin muttafaqun alayhi xali al al otul mooy al xaliisul jaafi mooy ku ku ku jàgg ku xiis ku jàgg nit nit ku xiis ku jàgg nga xam ne doole rek ngay jaayee ak loolu kooku baaxul ne safara la jawaas ñu ne mooy kuy dajale te du joxe ñu ne ñeneen ñi mu ne mooy ku rëy koo xam ne dafa rëy ba pare te te te bon ak kuy rëylu mooy koo xam ne dafay bañ dëgg te tey xeeb nit ñi ñett ñii safara la jëleen si abi saadil Quraysh yàlla ko yàlla gërëm mu jëlee si yonent mu ne safara ak aljanna dañoo doon dañoo kaamantoon wala dañoo dàggantoon ixtajir mooy dañoo coow coowloo safara ne nee na man si man lay ñu mbëru ñi nekk ak réylukat yi aljanna ko man de ñu néew doole ñi si jullit ñi ak miskin yi ci man la ñu nekk yàlla xatte seen diggante mu ne ko yow aljanna yaay sama yërmaande ci yow laay yërëmee ku ma soob yow safara yaay sama mbugal ci yow laay mbugalee ku ma soob waaye nag ku nekk ci yéen ñaar waral naa sama bopp ne dinaa ko feesal bon ñu ñu mbëru tey réylu fa ñu jëm mooy safara yàlla ñu ci yàlla musal mu ne an nabi احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في الضعفاء المسلمين ومساكينهم فقد الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليهم ولك wali kilaykumaa alay mil'uhaa rawaahu muslim jëlee nañ si beneen asalaam ilaakum ba tey mu ne yonent wax na ne du dañ benn nit di yëkkati boppam di yëkkati boppam di dem ak boppam ba yàlla bind ko ci ñu ñi su ko defee la dal dal ko rawaahu tirmisi mu ne yonent xaala rasulullah sallam laa yazaalu ar rajul yazhabu bi nafsihi xataa yuktabu fil jabbaarina fa yusibuhu maa asaabahu rawaahu tirmisi moo yasabu bi nafsi mooy yata yartafion wa nit ki di di réylu nangam man nangam man nangam da koy def ba yàlla boole ko ci ñu réy yàlla dugal ko safar yàlla mu ne dana génn sa safara genn dox goo xam ne day am ñaari nopp juy dégg ak ñaari bët yuy xool dox kese am làmmiñ wi wax muy wax ne wakkil nañ ma ñett bépp ji aji mbëru juy féttéerlu képp koo xam ne danga nga am mbëru féttéerlu yàlla boole naa moom fi maa koy seere fii ci safara ak képp koo xam ne dafay xoote ma ak yàlla keneen ku yàlla moroom man ma ma maay mbégoo ay mbiram fii ak ñi nga xam ne dañuy melal mooy ñi xet ay nit wala ñuy tabax ay nit wala ñuy mooy musawiroon yi foofu nag musawiroon yi am na wuute ñu ne du photo yi bokku ci yi style bi ngay jël waaye ñi tabax dara ba mel ni nit wala ga gaynde wala leneen ñu ne bu yàlla xëy yàlla daleen def leen ci roxo bon ñooñu ñett ñooñu loolu dox googu mooy malaaka lay xam naa lay doon ndax safara moom ay malaaka yi mbugal yaa fa nekk waaye melokaan wi daal lu tiidu la dox ak neen goo xam ne amul bopp xamul nopp xamul bët xamul làmmiñ nee na ñett ñoom moo leen di moo leen di kippe waaw ku ku wetteelu kuy hooteel yàlla morom ak kuy melal yonentu sala wax na ne fang ñi nga xam ne dañoo li yomal xiyaam ñu mel ni ay sànq lañ ci melow ay góor niñ doon réyloo yàlla da leen di tuutal bañ mel ni ay sànq lañ ñooy gën a tuuti sewaar safara nit ñi sax dañ leen di dëgg mu ne toroxtaane dañ leen muur ci place buñ mënti nekk ñu màng leen jëme leen ci kaso goo xam ne police lañ koy tuddee da leen di kowe safara ay euh, safaraaw sukk maanaam safara ni ñu takkal nag yi seen bopp yooyu euh, mooy li ñuy nagi mbay yi safara dañ leen di sugee safara maanaam seen bop safara lañ leen di yo xamné safara la ñu takal leen ko ñu leen di nandalé ci nalitu banu xabal te moy mbal jettu safara yi fiñ ñu lakkee li ndox mi xellee ko ci ñom bay fi ba dajalo mom lañu fop jox leen ko ñu naan nisaa yu terme ak timis ñoo ko nettali Seydina Abubakar wax na ne bu kenn xeeb ben julit ndax ku gëna a tuuti si jullit ñi ku ndaw ndaw xalé bu jullit mag la ci yàlla man la yaqiru ahadun ahadan min al muslimin fa inna saxiru al muslimina kabirun inda allah taala bon gonek jullit sax waro ko xep waxuma la nak mag muhammad ibn hasan ibn ali na du dugg ci xolam ben nit dara ci reey mukk lumay dana wañ ci xelam mi lu toll ni loola moo xam lu néew wala lu bëri ku réylu rek sa xel wàññeeku bon loolu rek jar na euh, bañ a rëy ndax nit ki bu xelam wàññeekoo rek doonatul nit jëlee nañ si Suleymaan mu ne si ñaawteef yi nga xam ne lu baax du fa jariñ mooy rëy xam nga am na na xasanaat yi suñu sayiaat waaye am na sayiaat yoo xam ne xasanaat na amul si ñoom jeexital boobu mooy lan rëy lenn ci boroom xam nga wax ne ne bépp bàkkaar am na euh, fatxu maanaa am na buntu ubbeekuwaay boo xam ne mën nañ fa jaar tuubee ko lu may rëy kullu zanbin yakunu maahu al fatx ila al boroom xam-xam yi séddale nañu rëy ci ñaari xaaj sababu diine sabab boo xam ne sababu rëy goo xam ne diine lay doon ak sabab boo xam ne àddina lay doon mu ne sababu diine bi dafay làmboo màggal sa bakkan bi ngir xam-xam wala ngir jëf joo baax jooy def yàlla dalay may xam-xam nga dem ba foog ne yow yaa gën a xam ñëpp sooy wax sax sa wax ji dafay feeñ ci ne yow jàppoo ne nit ñi dara lañ dox la jëf nga liggéey jëf jëf yoo xam ne dem na feeñ ba nga yàgg ne yaa gën nit ñi mooy dafay làmboo mbir àddina bi mooy làmboo yu bari nga sa bakkan bi dafay réylu ngir lan ngir xaskan sama askan wi moo gën askan nit ñi dañ si réew ak ak ak situation ak doole ak xalal ak taar ak bëri ay ndimbal ak topp sama topp yi man dama bëri ay nit sama taalibe sama mbooloo mi dana tax nit di sama xalal ji dana tax nit ñu sama taar bi sama doole ji walla sama askan wi walla sama situation bi loolu yëpp day waral rëylu bon des na des na tuuti rek walla ñu bàyyi ko foofu ba suba ñu dem foofu bu subaa ñu mottali li nga xam ne euh, rëy dafay nekk ci ñetti xaaj yoo xam ne si yi ñuy rëylu loolu la bëgg a wax jeexal rëy bon loolu mooy rëy di jàngoroy xol joo xam ne duñ euh, war a raxas la si xol yi su fekkee ne bëgg nañoo nekk di jaamu yàlla bu sell ndax mooy tax ñu mën a considérer suñu morom mooy tax ñu mën a jëflante moom jëflante bu rafet mooy tax ñu mën na xàgg euh, ci yàlla yàlla ñu yàlla raxasal suñu xol mboolem jikko yu bon yi rawatina rëy yàlla bu ñu dey yàlla ñu gis ñëpp di suñu mbokk yàlla ñu gis ne ñun ñoo xees ñëpp ñëpp ñu féete kaw ndax loolu ku ko def rek da ngay euh, nekk koo xam ne euh, da mën a dem ci yàlla yàlla moom moom yàlla lépp lu si taseeg njub yàlla ñu ko yàlla jéggaloo te jëfloo ñu lu si taseeg njuum te yàlla ñu ko yàlla jéggal te xamal ñu ko wa ma salika allahumma salli ala sayyidina